du ma ko défendre loi bi gën a controversée muy parrainage te Farba Ngom wax ak yéen ci bureau euh, Amadou Ba la veille du parrainage may dem ko cour de justice de la CEDEAO invité ma moo ni ma avion lañ la war a luyeel laaj leen ko lu tax mu koy wax nga ñëw fekk man man bindoon naa ba def ab demande d' autorisation d' absence joxe procuration mu ne ma sa présence ci salle bi leneen la danga nga faa war a teew booba de ñoom ñemewuñu opposition yi man lañ bëgg ma teew génnee leen ci xeex bi bu paree nag ñoom comme li may wax ñu saaga ma wax ma li leen neex te du ma seen morom baat boobu laa wax li ma war a préciser yàgg foofu ndax dégg naa kuy wax naan géwël nekkuma ci logique boobu ndax dem na bay def parallèle di tudd Alaaji Mansour Alaaji Mansour sama baay xam na li nu seex ku ma respecté la ku ma séqal li may séq ak suma baay bi muy dund moom la Farba laa wax géwal la waru garam du fekk am am mbir mu yàqu mu koy gën a yàq daa war a dox tànk yoo xam ne yi moom laa gis président Youssou Ndour dox ko gise nanu ndax démb laa ko waroon def jot ko waxtaan nanu xamal naa ko ni ko may naa ko lu bëri ci fi ma bëggoon a àgg du ma fa àgg ci wax waaye mënuma bañ a dajeeg Sénégal yi ndax sama honneur moom lañu ñu sama bàyyi nee na bu nit toogee ci penc mi torox la ko tontu ci penc mi bul wax ci sama moroom la wala du sama morom dafa am lu mu teg sama kaw loo xam ne amul ma war a taxaw ak sénégalais yi ni leen moom moomu kët jàpp ne milliardaire la te ma waxoon ni 2009 muy Farba Ngom bi ñuy dem élection locale waxoon na ne amul lu mu campagne benn Mercedes am lay jaay campagne tabax na kër goo xam ne estime un milliard mi ngi yor ay centaine de di ko traversé frontières yi mi ngi ak milliards yu muy joxe fu mu jóge c'est une question importante bu dee moom dafa may jox ci milliards yooyu mën na ci tontu kañ la ma ci doon jox kuy témoin ak lu tax mu ma koy jox ndax man nekkuma ci benn marché état joxuma benn marché dilaluma kenn ci marché directeur yi muy wax pression awma directeur boo xam ne maa ngi dem ci yow di ci wut ñaari direction laa am laa xam ci Sénégal bu port ak COSEC en tant que président chambre de commerce damaa ñoom lien de travail port quatre ans yi jaaruma fa ab Ablaye Diop ba mu fa nekkee ba jóge faak léegi benn yoon laa fa dugg parce que dañu am rapport en tant que union des chambres de commerce ak COSE ministère yi nekk Sénégal ministère des finances laa fi xam bu may dugg intérieur danaa fa dugg mais Aliou Ngouye ba mu fa ñëwee léegi sama tànk jaaru fa maa nga fa mujj ci Abdoulaye Daouda jàlloo ministère de l'agriculture dama leen di lebal jiw comme tous les opérateurs semenciers kon danaa fa dem mais amul beneen ministère kon ban ban chantage lay teg ku ma koy teg xaw ma fii ci Sénégal benn ministre boo xam ne dana maye cinq cent mille xaw ma leen kon yooyu wax wax bu yàqul boo xam ne jarul di wax ndax man sama ñaq ci lay dund loolu wax naa ko ku mu neex ku mu naqare 21 ans ci laa am million bu ma moom ça je le dis te nit ñi xam nañ loolu intercolor di 4 4 96 maa ko jëkk a jënd jaay ko as jaxate mu jaay ko bàcc ñaar transitaire bu ngeen ko ko waxee dana leen ko wax moom laa campagne conseil régional ñaari katkat kon di ma wax oto am naa ko ak awuma ko loolu amaluma njariñ beneen bi mu war a clair mooy far digganteem ak yàlla na wax ak yéen kañ la ma doon jox fukki nag yi ak ku ko doon indi danaa wax ni day 2012 yónnee na ma ñaari nag ci cant bi jox ko ku ñuy wax fuuta mi ngi ci daral man ngeen a dem laaj ko ko la woo naa ko bërki dem mu ne ah xëy na ko ma ne ko kon yow da nga ma yoral fukki nag ndax farba neen daf ma ko doon jox farba samay cant genn gu mu ñëwit amul xanaa bañ nekkee opposition te xaw ma leer na ndax 2009 2010 2011 ñaanal naa Macky Sall jàppale ko muy ñëw Touba di présider cant gi ndax 2005 la cant gi tàmbali cant gi première année ñetti nag lañ ci rey xanaa kon damaa jaay juróom-ñaari nag yi juróom-ñaari nag yi maa ngi ko comment maa ngi ko limité ci première ndaje bi Aïda Mbodj wax nañ ci moo ko présidé en 2005 moo ñëw présidé ko mosuma gisub dërëmam bu ci dem ndax at moomu at yooyu farba amul xar mu mën a joxe bu dee dëggal xaar amu ko bay am ay nag yu muy joxe mbaa bu ko amoon it du am yéene ci kon nit ñi waruñu naxante leneen li ma koy posé te moo ma gën a ñor mooy enveloppe yi ma doon jox ci kan la jóge ci ministre la wala ku yor ay marché mais du ma nangu nit kuñ naan yow am nga ay courtage ay un milliard ci ay terrain wala ay un milliard ci ab gaz mu naan jox na ma mel ne daf may taxal kañ la ma jox loolu il faut mu leeral ko bu dul loolu danaa saisir la justice pour mu ñëw wax lu tax mu ma doon joxob xaalis ndax ñaanuma ko koo ku la ñaanu am na loo xam ne waruloo ko wax donc précision boobu moom laa bëggoon wax Gaston Mbengit wax ji muy wax ci géwal Gaston sama maga ñoo bokk bàyyi xamante nañ bu baax mais du sama modèle moom politiqueul politiqueul moom xam na ci lan lay dund bokkunu lu ñuy dund man damay politique je suis un homme politique du ma ni cëb jàpp fee ku nekk ma yóbbu la fee ànd pour ay affaires yenn yi wax naa ko ko moom tey ni ko dégg naa lu ñuy publicité mais dama laa ruus ruus Aminata Mbengue Ndiaye ndax sama manqué mais kon dinaa la tontu mais nag nee naa ko ma la nga taxaw ci benn rajo tudd sama tur bu dee da nga am diir yoo xam ne da nga ko def amee problème yoo xam ne peut-être Farba ku koy réglé wala ñeneen na dem réglé ji ko ak ñooñu man je n'ai aucun problème aw ma problème politique aw ma problème mu xaalis bay dugg ci lu ma xamul 17 milliards laay gérer au niveau du parlement de la CEDEAO fukki milliards ak juróom-ñaar nañ dem contrôler leneen li bu ko weddee maa moom nañu dem bindu of nag ku nekk wax li mu am ci alal ak fu mu ko jële loolu loolu laa ko woo nan dem bind ku ne ni nga am foo ko jële kañ nga ko am yëg naa ne jënd nay tool barki démb jam ñaajo ci benn xaritam bu bu daanu peut-être xam ne ci régime bële la bokkoon du ma tudd turam pour suturaal ko mais ci boobu lay doog a am tool barki démb man nag ay tool dama ko <laughs> am yàgg ami tool <laughs> ndax am naa pexey mën a ami tool beneen bi engrais yi muy tudd na wax engrais bi fu ñu ma ko doon joxe ku ma doon joxob engrais na ma ko wax na ko génnee bu dee dañ may joxob engrais ma je suis pas demandeur au contraire man maay jaay état bi bu soxlaa engrais ma jaay ko joxal ko ko ay nit xanaa kon loolu la dégg état bi yoral na ma engrais boo xam ne maa leen ko joxe fayaguñ ma ko kon loolu li muy dugg yoonam da cee nekku mais li gën a gàtt daal mooy ñiy wax bul tontu farba dama ne farba nit la mi ngi wuti milliard di ko def ci poosam di jéggee moom i frontière xaw ma day blanchir xaw ma lu muy def loolu suma problème waaye amul sañ-sañu di ma tudd ndax sequnu loolu président Macky Sall waxtu wu ma amee ci moom lu ma war a wax critique dinaa ko def waxtu wu ma ko waree am moom mënta teem a critiquer mais dafa waroon nag bi nga xamee ne ñoom waa PDS ñi ngi dóor ci kawam mu défendre Macky Sall mais booba gars yi PDS yi la moom la lëkkaloo noonu boobu wax na ko ñoo ñoo dooni xaritam lu tax mu doon làqu ci ñoom mosu leen a critiqué mosu leen a critiqué loolu mooy wax bi il n'a jamais critiqué ñooñu kon bu toogee ba man mii défendeur défense Macky Sall toi bu nekk ma toog defendre ko man la naan bu attaqué partie bi wala Macky Sall ban attaqué parti bi bu amee foo xam ne day ci kiñ ca ngañ doñ ko wax te bokk ko loolu laa wax ça va très mal à l'APR loolu laa wax et je le réaffirme kenn ci ñi xeexoon pour APR ñëw ci pouvoir bi ku kontaan mbaa bariwul ñu néew lañu ñi kontaan nañu wax ni kontaan nañu loolu rek laa wax et ça je l'ai dit au nom de tous les militants nañu seetaat nu ñuy def ba mën a defar suñu parti bu dee bëgg nañu suñu parti yàgg fi je pense que loolu moo doon essentiel li nga xam ne moom laa waroon a wax éclairer ko euh, nekk seen disposition merci